plaît yéen doon jéem a euh, rafetal defar ba mu baax. Mm-hmm. mais est-ce que euh, la décision wala la comportement l'idée ne venait pas en haut maanaam ñoom on sait tous que euh, Ousmane Sonko seen leader. Mm-hmm. lu mu leen wax xëy na du ma ne dañ koy appliquer systématiquement mais kàddu am na ci solo te on sait tous que aussi euh, jamono ji diggante Ousmane Sonko ak Khalifa y' pas de problème certes. Mm-hmm. mais diggante ak Barthélémy mi nga xam ne il est à l'Assemblée avec vous ça ça ça ne va pas Mm. mais c'est un parti bu nga xamante ne dafa am une crise de maturité politique et c'est une crise qui qui transperce tout le champ politique moom laa wax benn responsable Pastef mu ne ma wuy Abba yow merewul la ñun merewul Khalifa mais Barthélémy lañ mere ma leen mais parce que vous n'avez pas d'expérience politique ce qui se passe avec Barthélémy n'est que ce qui s'est passé entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa mm-hmm. bu leen fàtte ni bi ba Khalifa Sall di jël mairie Dakar de 2009 à 2012 y a eu presque une rivalité entre Khalifa Sall et Ousmane Tanor Dieng. c'est vrai waa kër Ousmane Tanor Dieng jàpp ne Tanor moo fal xalifa donc mooy maire de Dakar Khalifa Sall di liggéey pour wane ne Khalifa Sall pour Tanor ne c'est moi le maire de mm-hmm. mais bi Tanor di jàppale Macky en 2012 lan la lan la meroon dafa ne xalifa moo ma yàqal lu xalifa def parce que Khalifa ak Aïssata ñoo génn ne le PS n'a pas de candidat naturel. man Tanor Dieng may xëccoo ak Niass pour nekk le candidat de Benno Siggil Sénégal. Mm-hmm. Euh, boo lee Khalifa Khalifa la non le parti a dit qu'on arrête le centralisme démocratique on fait des primaires et il est hors question qu'on ait des élections sans primaire waa kër Tanor Dieng ne mais bii comme dañuy xëccoo beneen candidature primaire mënoon ñàkk c'est dans ce contexte là qu'on est aux élections mm-hmm. aux élections présidentielles Tanor ñàkk moo yàqal moo tax bi Khalifa taxawee mun ne ko comme ça doomu bàyyi la yaa ak moom ñu dem ni Tanor Macky dem jox euh, Niass assemblée Tanor wa nekk président Sénat Macky dem vacances Afrique Sud mu am ay inondation mu wàcc avion bi ne annulé naa ko mu xaar xaar xaar xaar ba instant mu bëggee songu Khalifa lu mu def mu woo Tanor jox ko HCCT mm-hmm. ne Tanor xeex ko ci parti bi man mu xeex ci mairie bi bi incident yi amee ci liste yi ñu naan Ousmane génne Barthélémy du leader di wax non dañu yaakaar ne Khalifa ak Barthélémy amatu c'est que xalifa la mu waxoon Tanor la appliqué ak Barthélémy Khalifa avait dit attends je suis le responsable de de la ville de Dakar. Mhm. même si je ne suis pas responsable politique de Dakar parce que à l'époque c'était Doudou Issa Niass qui était responsable départemental de Dakar du Parti socialiste. Khalifa considère que le responsable de Dakar le patron institutionnel et politique de Dakar c'est Barthélémy Dias. Mhm. moo tax il le laisse faire en toute autonomie. am ñu jàpp ne nag Barthélémy Dias dafay euh, agir ci loo xam ne euh, dafay jéggi autorité euh, ki nga xam ne mooy. Khalifa Babacar Sall c'est comme ça certains même disent qu'il travaille pour lui-même. il mais gis nga ñun fi ñu jaar mais Ousmane Tanor xëy na loolu la jàpp yàlla na ko yàlla yërëm c'est un très grand monsieur. Mm-hmm. man c'est une référence pour moi mais Ousmane Tanor Dieng xëy na bu loolu la jàppee ba tax mu xeex ba Macky am deuxième mandat mais Ousmane Tanor Dieng a fait son malaise le lendemain de l'installation de Macky. Mm-hmm. ba bañ koy évacuer ba bañ koy teeru fii. deuxième mandat bi dund ci dara. deuxième mandat il n'a pas vécu un mhm. jour. Mmh. au bout de l'injustice des hommes il y a toujours la justice de Dieu fii lu waaye neex de boppam mais ku nekk yàlla li mu war a dina la ko séddee ñoom ñoo demoon ak Ousmane Sonko ak Khalifa waxtaan seen Macky ils auraient dû avoir la maturité ba bañ ñëw ci militants yi. mais sa loolu mën na nekk Abba parce que boo seetloo euh, ça a euh, di di di am ay problème bi ngeen nangoo dem ci dialogue bi bi teg ci tuuti am lu xew mairie bu Dakar maanaam li xew assemblée barki démb am ñoo xam ne ñoo yàpp ne loolu nga xam nga bu ñu jaxasee mbir yi oui mais c'est les mêmes formations politiques même fekkee kii bokkul kaa yi bokkul ñoom ñoo dem seen seen seen waxtaan parce que avant la dialogue ñoom ñoo dem seen dialogue mhm. xam nga waxu ñetti politicien bu génnee si penc bi day nekk waxu 3 millions de ndegam waxu ñetti nit nga mu lijjanti waxu ma laa waxu 3 millions de personnes il ne fallait pas que ça moo tax les hommes politiques du ñu wax li ñuy xewle parce que da lay indi une crise de confiance xam nga lu ma wax. Mhm. ça n'a rien la jalo avec le dialogue mais Mamadou Awa Ndiaye comment tu peux expliquer tous ces gens là qui étaient avec Sonko naan ko waaw Sonko dañuy dem dialogue bi nagasin du ñuy dem dialogue dialogue baaxul patati patata mais ñoom ñëpp ils ont pas pris le fiche. si ils sont en Khalifa Sall bi leen mag fuuf ëpp leen jaar-jaar fuuf ëpp leen xam état fuuf Khalifa Sall dañoo ñàkk fay lambal lambal ci ginnaaw xale yi ba tey du nekk candidat parce que Khalifa bokkul ak ñoom kaa. non man ce que un responsable passivement dit sànq